jërë ngeen jëf mbokk yéen tournat Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyu rafet lu nu ngeen di toppee suñu chaîne bi ngir informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew tey seen acte du jour dañ koy doore ak procès kii di maire bu Ndakaaru euh, di Barthélémy Dias moom nag gannaaw a àtte sax boo xamante ni jàppoon nañ ko ni ki tey loolu nag mu ngi jëmoon rek ci sax ab jàmmaarloo wàllum politique bu amoon ba moom sax mu daal di woon rek fetelam ci loolu nag am ku ci ñàkkoon bakkanam sax ci loolu nag mu ngi nekkoon ci atum 2011 lool nag ñu toppeewoon ko sax ne moom moo daal di faat rek bile ndaw loolu nag ni ki tey la ñu a bile procès waaye nag juge ba daal dinay wax rek ne kii di Barthélémy Diaz moom moo daal di def a ni mel ba daal di a sàkku rek ngir ñu daal di koy tëj deux ans de prison dont six mois ferme ci acte boobu sax nga xamante ni nemmeeku woon nañ ko ci atum 2011 nekkoon wàllum jàmmaarloo politique ci ki nga xamante ni sax moom moo di maire bu Ndakaaru jamono ji di Barthélémy Diaz ci loolu a gannaaw mbir mi a di am moom Barthélémy Diaz am ab message loolu nag jëm rek ci ab remerciement Ah, jagleel na ko ñëpp ñu nga xamante ni bokkoon nañ ci bile xeex waaye tamit jàppale woon ko bu baax a baax ah, ci li ni mel message boobu nag mu ngi ko fësal ci compte Facebook am wax ci leneen ah, ñii di gaynde yi nag seen match amicaux yi daañ ko door bi ni ki 24 septembre bi sax dinañ amal match bu njëkk ba ci loolu nag ñoom daal dinañuy door rek seen i tàggatu ambiance rek la ñu daal di nemmeeku ci tanière bi ak sax intégration ñi nga xamante ni mën nañu jàpp ne ñu bees ñoom Lions yi nag daal nañuy nekk en toute complicité di dund ambiance bu baax a baax ni ki démb nag gis nañu ñi nga xamante ni sax ñoom ñoo mujjee ñëw bokk na ci ki nga xamante ne moom moo di Pathé Ciss Formose Mendy a ki nga xamante ni moom moo di Niakhaté ñoom nag daal nañuy def rek comme à l'accoutumée ni nga xamante ni sax loolu la ñuy dalalee joueur yu bees yi ci tanière bi loolu nag bokk rek ci lu ñu duppee sax bijoutage ci loolu nag ñoom jour yu yees yi sax daal nañuy présenté wu rek daal di fecc ñu tegal leen son lool nag daal di nekk ambiance boo xamante ni sax nemmeeku nañu ki nga xamante ne nekk na ca bopp ba di Cheikhou Kouyaté ak Idrissa Gana Gueye daal di jiite bi la ambiance rek jour yi di nekk en toute complicité dalal ñi nga xamante ni ñu yees lañ ci tanière bi waaye ñu des ci gaynde yooyu ba tey rek ak seen maye yu yees yi nga xamante ni daal di nañ koy fësal ni ki tey loolu nag gannaaw ab séance shooting ñu daal di cay gis sax kii di di Sadio Mané Abou Diallo ak ki nga xamante ah, moom moo di Cheikhou Kouyaté ñoom ñoo doon amal nag yi les séances shooting ah, maye yees yooyu ah, de couleur verte ci loolu nag gannaaw ba nga xamante ni a maye daal nañ koy fësal rek mu mel ni a nga xamante ne ñoom ñoo di sénégalais wala sax ñu ci ëpp d'accord ñu ci yi les mayo rek ñu war a yóbbu foofa ca Qatar ñoom nag ñu jàpp a waroon nañoo gën a am mayo yu dàq yi ni mel daal di nekk sax mayo yoo xamante ni jur na coow depuis ñu daal di publier rek li nga xamante moom moo di séance shooting bi ah, wane sax maillot vert yooyu nga xamante ni moom la lion yi ah, war a yóbbu ah, foofa ca Qatar ngir daal di amal rek seen compétition bi di coupe du monde bay xew foofa ca Qatar. ci leneen la ñuy wax muy Mia bu euh, groupe Mabo moom nag gannaaw a divorce ba nga xamante ni dox na ci digganteem ak ki nga xamante ni moom moo di Nofis ñoom ñaar nag nekkoon ay artistes yoo xamante ni ràññewoon nañ leen bu baax a baax fii ci Sénégal a travers chanson yi nga xamante ni dañ koy def waaye tamit a complicité bi nga xamante ni daal dinay amoon rek seen diggante waaye comme ni ko Wolof Njaay di waxee rek lu tëgg tas ñoom ñaar dal dinañuy divorce rek ci loolu Mia nag pour daal di dem rek màggal a ah, sans ki nga xamante ne moom moo di borom këram di No Face ndax kat divorce mi nga xamante ne ah, dox na seen diggante eh, Mia nag ci màggal a sax ba muy dem ah, mu nga àndoon ak ki nga xamante moom moo di frère am waaye nag leneen lu ñu nemmeeku rek ci mbir mi gannaaw ba nga xamante ni seeni photo moo ci nekkoon dafa daal di changer rek photo profil ba ak lii di photo couverture ba loolu nag daal di ciy lan la ci jublu waaye nag mu mel ni kii di Mia xam na lu mbir mi di wundu ndax kat gannaaw mu gis li ni mel rek daal dinay fësal sax ab post loolu nag la ñu mën a lire ca post ba mu daal di bind rek le bonheur en partant m'a dit qu'il reviendrait que quand la colère hisserait le drapeau blanc il comprendrait loolu nag nekk ay kàddu yoo xamante ni Mia daal dina koy bind rek daal di koy fësal ci ab post mu mel ni nag xam na lan moo wundu bi les changements jëm rek ci compte ba ak image yi nga xamante ni sax nañ koy soppi rek def une image blanche wax ci leneen muy kii di Modou Gueye ñu daal di koy xam nag ci émission bi di Kakatar muy faral sax di fa teew rek nekk koo xamante ni tamit ràññee nañ ko bu baax a baax fii ci Sénégal moom moo Gueye nag saa yu génnee ak sax kaddu ya ngay xamante ni daal dina koy génne rek ñëpp dañuy daal di dar seen gémmiñ bi yoon nag ñëpp sax daal di jàpp ne cette fois-ci il est allé trop loin loolu nag bokk na ci li nga xamante ni sax fësal na gëmul yonent yàlla rek la gëm euh, loolu nag daal di nekk loo xamante ni euh, depuis mu wax ko ba tey daal di nay jur coow euh, jëm rek ci yenn ci ay commentaires yoo xamante ni sax nemmeeku nañ ko à l'endroit des propos tenus par moo Gueye ci leneen la ñuy wax muy Lamine Samba ak coow li nga xamante ni sax jamono ji am na ko ak groupe Futur Media ba nga xamante ni gisatuñ ko foofu loolu nag mu jàpp ne sax moom dañ ko daal di frigo rek ndax émission ba nga xamante ni sax doon na ko def rek muy jogante gisatuñ ko ca kanamu écran bi lan moo waral ni li mel kenn amul bi l'explication en tout cas moom lamin Samba mu ngay wëy rek di def ay sortie di expliquer ni nga xamante ni sax noonu la ko TFM beddee rek jëm nag ci émission yi nga xamante ni moom la doon na amal rek waaye nag moom la Lamine Samba xaarul dara comme ni ko ñeneen ñi di defee rek daal dinay créer ab chaîne am daal di koy tuddee Songante TV mel ni nag kuy contrer rek jongante lool nag jëm rek ci chaîne bu bees boo xamante ni daal dina koy lancer rek ngir dooragum fay activité am balaa muy delluwaat foofa ca groupe Futur Média wax ci kii di Californie moom nag daal dinañ koy sax ràññe woon bu baax a baax ak coow la nga xamante ni doxoon na ci diggam ak njiit réew ma ak insulte ya nga xamante ni nemmeeku woon nañ ko waaye nag jàmm ga nga xamante ni dikkaatoon na sax ba moom muy wax sax na kii di njiitu réew mi moo ko andiwaat fii ci senegal ngir mu daal di koy campagnal ci loolu nag teewaayam fii ci Sénégal dal di fi def ab diir ba ñu bëri sax di yëkkati ay kàddu rek naan moom dañ ko daal di bloqué rek ci réew mi moom mu daal di fësal rek ab otom bu yees sax di ko présenté rek daal dinay andi ab leeral rek ci blocage boobu nga xamante ni sax nit ñi ñu ngi dëkkee di ko wax rek moom mu daal di andi ab démenti rek di wax sax nan kenn bloqué wu ko fii ci Sénégal toogaayam fii daf fi daal di toog rek ci coobare boppam waaye tamit lijjanti ay affaire am loolu nag moo waral mu daal di des rek Sénégal boobu ba tey waaye blocage bi nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy wax rek di wax naan dañ ko daal di tere génn réew mi muy wax sax naan dara amu ci coowal Adamo ak kii di Diaba Sira ak ki nga xamante ne moom moo di am zozozo ak Pape Mbaye ñoom nag mu ngay gën di wéy gannaaw ba nga xamante ni Adamo génnoon na def ab live di wax rek ne dina fësal liste góor jigéen yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Sénégal ak ci gambi ba sax kii di am zozozo daal di génnoon rek di wax naan Adamo na ko génnee ci mbir moom a génne tamit ci saaga yi nga xamante ni sax day dëkkee rek di ko def nit ñi mu mel ni nag daal dinañuy amal ab live ñoom ñooñu muy Adamo Diaba Amzo Zozo ak Pambay waaye nag lañ ca nemmeeku mooy weerante rek lañ fa daal di nekkee gannaaw sax yenn ci ay audio yoo xamante ni ku ci nekk rek daal dina koy génne mu nekk ay audio yoo xamante ni daal dinay fuité rek mu mel ni ay révélation yu doy waar sax lañu ñu daal di nemmeeku rek ci yile audio waaye nag live ba daanaka booy xool mujjewul fu neex ndax kat ci saagante nday xiro ak ŋaayo la daal di mujj rek ci diggante kii di Adamo Diabasira Amzo Zozo ak kii di Pape Mbaye bu ñuy wax couple modèle mën nañu jàpp kii di Eva ak Pi ñoom ñaar nag gannaaw ñu marié ba daal di doon sax ay parents daal di nañuy rek dund seen mbégte bu baax a baax kenn du leen dégg ci lu ñàkk fayda ñoom la ñuy gis noonu en toute complicité mu nekk kii di Eva nekk actrice ci Pod et Marichou waaye tamit Pi nekk animateur bu ñëpp ràññee ci foofa di groupe Futur Média ñoom ñaar nag la ñuy gis ci image yi noonu ñu daal nekk en toute complicité. incité di dund seen mbëggeel bu baax a baax wax ci beneenub actrice muy Kumba mu ndaw moom nag daal dinay sax publier rek ay photom yu yees nekk tamit koo xam ne am na présence bu baax a baax ci réseaux sociaux yi moom Kumba mu ndaw nag moom la ñuy gis noonu mu nekk koo xamante ni tamit gannaaw cinéma bi nga xamante ni mu ngi koy suivre rek waaye nekk na koo xamante ni tamit daal dinay am taxawaay bu baax a baax ci ay réseaux sociaux yi nga xamante ni sax ay kontam du gëj rek di publier ay photom waaye ñu wax ci ñeneen tamit ñu nekk en toute complicité jotee muy ci diggante yaay ak doom mu nekk duo boo xamante ni ñëpp daal dinañ koy rafetlu fii ci Sénégal muy Viviane ak kii di Zeyna ñoom ñaax nag du ñu jóg rek di wane complicité bi nga xamante ni dox na seen diggante muy Viviane ak kii di Zeyna Ndour Léna Gueye mu ngi nekk ci ay vacances am ànd ak ay copine tubaabam lool nag di dund mbégteem bu baax a baax moom Léna nekk actrice boo xamante ni tamit daal nañ koy ràññee bu baax baax mu ngi plein dents Léna Gueye nag moom la ñuy gis noonu en compagnie de ses amies blanches wax ci beneen beneenub couple muy Marichou ak kii di Billy mu nekk Marietou Diop ak xaadim Sène ñu daal di leen ràññee bu baax a baax nekk tamit ñoo xamante ne am nañ taxawaay bu baax a baax ci cinéma sénégalais ñoom nag ñu ngay wëy rek di fësal seen bëggeel rawatina ki nga xamante ne moom moo di Marichou ak Snap bu yees bi nga xamante ni sax daal dina koy dugal rek di feddaliwaat mbëggeelam bu baax a baax ci kii di Khadim Sène Billy l'ambiance règne à Subatel loolu nag Sidi Diop moom la ñu daal di gis gis rek muy toppandoo ki nga xamante ne moom moo di Mandiaye Seck depuis intégration Mandiaye ak ki nga xamante ne moom moo di Bambali ci label bi di Subatel mën nañ wax ne ambiance rek lañ fa nemmeeku ak jàmm loolu nag Sidi Diop mi nga xamante ni sax mën nañ wax ne mooy artiste ba nekk ca bopp ba moom la ñu gis rek muy imité à la perfection ki nga xamante ne moom moo di Mandiaye Seck kii di Damboj nag ak ay kaddoom rek yoo xamante ni sax yëkkati na ko daal di koy teg rek ci maire bu Guédiawaye bi di Ahmed Aïdara loolu nag rek jëm rek ah, ci candidature bi nga xamante ni sax bëggoon na ko déposer rek jëm ci a assemblée nationale a ah, Dame Mbodj nag muy recadré waat kii di Ahmed Aïdara bu baax a baax di wax rek naan Ahmed Aïdara lépp loo ni rek daal dina koy am wala lu mu gañ rek c'est grâce à Yewwi Askan Wi ah, ni rek daal am la rek jëm ci wàllum jiite mairie bu Guédiawaye Yewwi Askan Wi nañ ci wàll ndax kat coalition boobu ak sax joxante loxo boobu noonu Ah, moo tax sax ba mu daal di agsi fii mu agsi kon nag day amalu ko métti lool bu gisee sax kii di Ahmed Aidara bëgg a démarqué wu rek di liggéeyal boppam sans ñi nga xamante ne moom moo di yeewi askan wi. kii di Edu la ñuy waxtaanee mu nekk borom kër ci Fama Thioune nekk tamit acteur bu ñu ràññee bu baax a baax moom nag ak tiis sax moom moo dal ci kawam gannaaw ba nga xamante ni dafa daal di ñàkk rek ab sërëm mu daal di doon lu métti lool moom Edu xanaa rek di ko ñaanal yàlla yërëm ko te xare ko aljana ci sama kàddu ak ci kàddu Allô Sénégal ñu ngi ko koy jaal bu baax. diwaanu yëmbal la ñuy tab bi ab maçon la fa ab menuisier daal di jam rek ba mu mujjee ñàkk bakkanam nag mu nga xewee a ca yëmbal ci loolu nag gannaaw ba nga xamante ni takk der a ñu nga doon wëyal enquête bi rek ngir daal di jàpp rek harmoniser bi a li ni mel moom nag dañ ko daal di fekk rek ci ab baar foofu gannaaw ba mu daal a jame maçon bi rek ba mu ñàkk ba kanam ca Mermoz tamit VDN ba ab accident bu métti sax moom moo daal am rek mu nekk ab collision camion ak auto 4x4 loolu nag gannaaw ba nga xamante ni 4 euh, ba daf doon daal di may rek euh, piéton yi ñu daal di jàll euh, ci loolu nag la da camion bi daal di génn rek dajeeg moom ñu daal di mbëkkante sax ba ay nit daal di ci ñàkk seen bakkan mbokk yi safoon doon ñu teewlu li leen andi loon seen di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi te laal cloche notification bañ a raté dara information jërë jëf